wasaare lamb ci la wasaare lamb yéenay wasaare te xam wasaare yaa am lépp jaajëf Gris Bordeaux saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Papa Sow ma ñu dàqee woon ca Fass muy xaar peer ba ba waa Fass jëlee dogal ba gàcc ci ndoddam daane woon du ci àddu amu ci commentaire moom le piment de Fass amul lum ciy wax day xaar ba papaam peer ba ñëw àddu ca journal ba xam le ne peer ba yegg si na voyage waaye yaatalut ca mbir ma ay naataangoom ya mu bokkal Fass di ay mbër ñoo ci àddu wax ca seen xalaat kii di Forza Boga ak Gris Bordeaux ku ci nekk joxe nga sa xalaat moom Gris Bordeaux troisième tigre de Fass la xam le mooy na lépp rafet avant dara écurie moom famille la waru ñoo sunu noon ñi luñ lay reetaane mboolem bu nekk nekk ci Sénégal da ngay am ay problème waaye loolu dirigeant yi dañ koy régler buñ ko weesoo weesu nanu ko mais mbir mii xew daal diggante Fass ak Papa na lépp nice bu dee Forza la mu xamle mooy ba ma jotee ca mbir ma damaa ne il faut ma waxtaan ak président Abbas Ndoye ba ma déggee ne dàq nañ Papa damaa ne faaw ma toog ak Abbas Ndoye ñu waxtaan comme que waxtaana guñu nag dossier boobu mën a guma caa sori waaye li am ba des daal mooy Fass ab famille bu ma sañoon saa yu ma gëstoo gis ko bu dee père ba ma Papa doon xaar nag ba mu ñëwee dafa ne mbir ma faux débat la l'exclusion de Papa Sow c'est non événement dàq du événement du ma ca wax père ba yow la Papa doon xaar ngir nga àddu ci mbir ma mu ne waaw ñëw naa waaye wax jotagul bu wax ci mbir mi jotee Sénégal gépp na nañ xam ne wax jot na waaye fan yi ñu toll moom amaguma lenn lu ma cay wax waxtu wu wax jotee nag danaa woo ñëpp wax ba lamb posé question di xaar kàngamu lamb yi ba xam ndax nangu nañ ko wala déet bu dee njuga ja de Fass la mu xamle mooy il pour être quatrième tigre de Fass mais la waral mais ba ko laaj mu ne Serigne Ndiaye de ñëpp xam nañ ne champion la ñëpp xam nañ ne champion lay doon it ñëpp xam nañ ne sérieux na respecté nay entraînement am na waa Fass ni ma ko gisee ni am nay atu ngir nekk quatrième tigre de Fass lu waral mais bi mu ne li Ndiaye 2 nag bu muccee ci loolu dana dooni champion bu dee Boy Kayre ancien lutteur la mu xamle mooy bu xoolee bu baax fa muy jaar dana def gis état physique ba yokku na te li waral ko booyam am na lu nekk ci moom bu njëkk Fass amoon na mbër yu mel noonu ñu ñëpp yaakaaroon waaye li olof di wax naan xalam demoon na bay neex buum nga dagg wante Serigne Ndiaye mi bu continuer ci lancé bi xool bu baax fi muy teg tànkam dana sori bu dee Thierno Ndiaye chroniqueur ca TFM la mu xamle mooy il peut être roi d'ici 4 ou 5 ans moom Serigne Ndiaye 2 fi ak ñeenti at wala juróomi at mën na nekk roi des arènes lépp lu mbër di soxla Serigne Ndiaye de am na ko muy force di technique di témérité am na ko forme physique ak mentale de fer am na ko sérieux na te ci ay combat day concentré am na encadrement de très qualité te costaud na technicité baa xeex ba foo ko natt weesu na ko kon gone gii buñ ko jàppalee fi ak ñeenti at jàpp juróomi at dana doon roi des arènes buñ jàllee ca lit sans frappe onzième journée ci Adrien Senghor niki suba la ci àllarba ji le 25 décembre bi Mbarong production moo woote ci Adrien Senghor teg la ñu coordonnateur de facile classé ba ca yaayam poussière ba ñooy bëre foofu le ba yemboog altine moom la ñu réserver ya journal ba xam ne bile village ku fa dem da gis lamb da gis fecc fa ñuy jeexale mooy ca Luc Nicolaï ndog ba ko dal Thierno Ka chargé de la communication bu seen CNG ñëw na ci ci ni mu gën a yaatoo buñ demee ca règlement ya tënk mbër yeeg promoteur yeeg manager yeeg CNG dañ fay fekk statut muy règlement bi tënk promoteur ak li ko war foofee article 3 ba ci cas yi a tax ñu nangu licence promoteur la licence de promoteur peut être retirée dans les yi ñuy bëgg a lim rek kay ñu nangu licence promoteur ba ca njëkk mooy le non respect par le promoteur de ses obligations bu respecté la ko war ci digganteem ak ministre des sports digganteem ak CNG digganteem ak mbër yi mën nañoo nangu licence am wala organisation ba am manquement bu grave ba tax làmb ja fayit loolee bokk na ci liy tax ñu nangu licence promoteur beneen ba ca topp mooy dissolution maanaam mettre fin à l'existence légale dakkal say yëngu-yëngu ne bàyyi nga wala condamnation à des peines privatives de liberté de droit civique moo ñu jàppale ne la ràpp ci kaso bi situation bi ku ci toll danañ nangu sa licence gannaaw ku ñu privé de liberté tëj la ci kaso bi danañ nangu sa licence promoteur te Luc Nicolaï ci situation bii la nekk moo waraloon ak lu licence am automatiquement CNG da koy annulé ci ni mu gën a waaye li xew ci Luc Nicolaï dafa wuuteeg loolu bu doon Luc Nicolaï dafa am licence promoteur ci turam buñ ko yóbboo prison dañuy nangu licence ba waaye ñépp xam nañ ne Luc Nicolaï amul licence promoteur ci turam waaye structure bay Luc Nicolaï Enco moo am licence ba bu dee structure bi moo jënd licence bi nag buñ tëjee Luc Nicolaï yoonu structure bi nekku ci day continuer di doxal a mais dama si am dama si am kontante parce que gis naa di ngeen laaj mbër si anam bi xam ne di respect di di manqué respect mbër te ki ngeen laaj du ko xam nit du ko laaj manqué ko respect te ki ngeen laaj ki ngeen laaj du xam ne ña ngi koy manqué respect moom mi laaj sax du xam ne ñu ngi ko moom mi manqué respect nit gisuma si yéen loolu di leen ci gis bu baax tamit yéen wax ni yàlla yàlla defal leen jàmm yokku télé bu baax a baax a baax